Merci beaucoup Valéa. On a eu des croissants chauds ce matin avec euh, comme du café euh, donc en accompagnement. Merci beaucoup euh, donc euh, Valéa. Merci aussi Ablaye pour euh, ces petits croissants tout frais du matin. Yàlla na Yàlla fay comme on dit. Bonjour Ablaye. Jërëjëf. <laughs> Bonjour Dieynaba. Plaisir de retrouver et de retrouver sama gars yi demoon ci barab bu sell bi mm. màggalu jàmm dem ci jàmm ñëwaat fekk fi jàmm ñuy ziar suñu soxna yooyu nga xam ne mm-hmm. liggéey bu mucc ayib lañu def naata Fati yi toute l'équipe vraiment ñi demoon teewlu nañu leen et sant nañ leen bu baax. Mm-hmm. dund nañu màggal gi bu baax. bu baax macha allah vraiment moo tax man leen ko pour mériter. Mm-hmm. Euh, donc ñaari fan doy na. man deux jours ça suffit. non il faut ñu noppalu ba ba sa vendredi jeex donc fii ak vendredi je vais assurer donc y' a pas de problème mesdames pouvez vous reposer. incha allah toujours la petite euh, voilà. comme on dit yàq supp bi euh, alors euh, Ablaye on va parler aujourd'hui si njàngat bi ci benn sujet bi nga xamante ni donc indi disons benn intitulé. euh, ils vont foirer le ou leur projet d'abord euh, ñu taxaw tuuti ci libellé bi euh, donc c'est le ou leur projet. alors évidemment c'est une alerte c'est, il n'est pas décidé que c'est foiré ou mais c'est une alerte maintenant pourquoi le ou leur. Mm-hmm. parce que tolluwaayu dëkk bi moo toll foo xam ne dafa mel ne am na ñuy siisu wax maa moom maa moom maa moom. Mm-hmm. et parfois. ça dégage même de disons de l'exclusionnisme en fait ci li war a dox mais on va peut-être même mener la réflexion avec une sagesse de on n'est pas au mois de mai avec une sagesse de Bob Marley femme lu am solo lu mu wax loo xam ne mën nañ ko jàpp mu ne ne cesse jamais d'être une bonne personne ci yéene am suñu yéene ci nit ku baax mais wax lu baax nekk ci lu baax mu yokk ci ne contente-toi de choisir qui méritera cette gentillesse cette gentillesse maanaam sa yéene jooju ci contexte bi ñuy waxee nii yéene boobu Sénégal la te Sénégal ñëpp a ko bokk du sax ki nga xam ne moom lañu fal tey moo mën a jàpp ni fal ngeen ma nag man la maa ko moom bu weesoo moom ñi mu àndal bu weesoo ñi mu àndal lu ko gën a yaatu ci coalition ak leneen ak leneen ak leneen ba ci sax yaatal ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi parce que gis nga dañuy faral di wax ni nit bu xasee ba falu maa ngi koy fàttaliku en 2019 pourquoi c'est important de revenir à 2019 parce que le président Macky Sall est réélu avec 58 pour cent. 58 pour cent c'est bien plus que les 54 pour cent du président Bassirou Diomaye Faye mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bien élu mm-hmm. le plus important c'est qu'il est élu avec une majorité confortable dès le premier tour mm-hmm. mais foo mënee jàpp ni 54 pour cent yi falal président Bassirou Diomaye Faye yóbbaalewuñu 46 yi des yi ko votelul te ñu war a gis seen bopp ci ni nga xam ne nii moom mi ñu fal noonu lay doxalee parce que mënul doxal ci ne man 54 yi ma fal lay doxalal donc imaginez les 58 pour cent de Macky Sall qui aurait exclu 42 pour cent dans la façon de conduire les affaires du pays moo tax Sénégal ku mën a ku bëgg jàpp ni yaa ci ëppale nit ñi yaa ngi juum. ku bëgg jàpp ni yaa ko liggéey ba mu egg fii yaa ngi juum parce que la contribution <laughs> c'est comme une formule sur l'environnement la contribution déterminée gis nga loolu mënoo évaluer lu ci ku nekk dox te c'est très important ñu xam ni yéene bi bokk contente-toi de choisir qui méritera cette gentillesse pour moi celui qui méritera cette gentillesse te du ñu ci jóge mooy le Sénégal. Mmh. Sénégal qu'on le Sénégal qui doit demeurer loolu waruñu cee jóge parce que ni muy demee nii li tax alerte bi pour ñu bañ a yegg fenn fi la bañ a yegg ci xët-xëtu deux trois dernières années yi nga xam ne nii dund nañu ko. ba situation de clivage boo xam ne lañu ne nekkoon alors que il y tout peut-être pour. être au moins dans un début de mandat à tout le moins apaiser waxuñu politique du am mais qu'il n'y ait pas ces points de crispation parce que quand même tension bi c'est trop tôt ah, c'est trop tôt et c'est sur des sujets yoo xam ne on aurait pu en faire l'économie c'est surtout ça voilà venons-en au facteur ndax euh, am na lu fi jaar lu nga xam ne jàpp nga ni mënoon na ñàkk muy génn bi nga xam ne ministre des télécommunications et de la communication Aliou def na ko prise de parole boobu euh, pour yow lan moo tax nga xalaat ni mënoon na ñàkk et puis c'était pas utile. Malick le ministre il fait sa conférence de presse le 16 je vais j'espère que la régie pourra nous aider à revoir passage communiqué conseil des ministres. du mercredi 14. Est-ce qu'on a juste cet extrait que j'ai choisi C'est le président de la République qui parle. Mmh. C'est Est-ce qu'on peut nous afficher mhm. ñu mun ko gis c'est le président de la République qui parle. Extrait du Conseil des ministres. On va lire ensemble. Mhm. C'est important qu'on lise cet extrait nit ñi gis ko. Mhm. Encore une fois, communiqué Conseil des ministres du 14 qui précède de deux trois jours la sortie du ministre de la Communication. En Conseil des ministres, on dit quoi? appelant à un dialogue rénové avec la presse nationale le président de la République a relevé que la situation générale de celle-ci, la presse, mérite une attention particulière du gouvernement et des mesures de redressement appropriées. Mmh. Les mots ont un sens. En effet, une presse professionnelle, responsable et respectueuse de l'état de droit demeure un pilier majeur de la démocratie. C'est dans ce sens qu'il a demandé au gouvernement, notamment au ministre de la Communication de veiller à l'application intégrale du Code de la presse, mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse dans un esprit permanent d'ouverture et, et, de concertation en vue du mmh. respect des cahiers des charges signés. Quand on a Éventé lu ça, c'est le communiqué du Conseil des ministres. Mmh. Quand on a lu ça, évidemment, cette prise de parole du ministre de la Communication devient superflue. Pourquoi devient superflue Parce que le contenu de la communication du ministre, Aliou Sall, est le contraire, contraire li président de la République wax la te président de la République mooy war a mujjee kàddu gi. président de la République mënul joxe directive yi mu leer nga xam ne mu ngi apaisé mu ngi woo nañu ci jàmm ci concertation. ministre am génn def le contraire parce que la sortie du ministre on peut on va revenir dans le fond. Mmh. quand il finit sa conférence de presse tu as l'impression qu'il y a deux camps qui se font face. c'est tout le contraire de ce que le président de la République veut et demande à son gouvernement de faire et demande à son ministre de la communication de faire on a l'impression que bi président de la République waxee ba pare match de football ñu siffle fin mais en qu'ils disent non acteur bi wala équipe bi. sonn ñu trop foog ñu gën leen a sonal faut qu'on joue les prolongations et ça ça n'a aucun sens parce que finalement la communication du ministre de la communication yokk ci tension bi la jaxase carte gi jéebaane presse notamment la presse privée et qui ne semble pas sa communication ne s'inscrit pas dans ce que le président de la République veut et indique en conseil des ministres veiller à l'application intégrale du code de la presse ma fàttali ni code de la presse bi bokk na ci sax disposition yoo xam ne nii jëm nañu ci moralisation bi jëm nañu ci fàttaliwaat ko le prétexte la communication du ministre c'était de présenter la plateforme d'identification c'était ça le prétexte mais identification boobu yaa xayti tàmbali nañ ko depuis deux mille vingt deux def nañu ko sax ba pare. la preuve ministère de la communication moom ci boppam xam na ñaata télé ñoo existé ñaata site ñoo donc lu ñu def ba pare la ça n'avait même pas de raison d'être encore de présenter une fois pour demander aux gens de s'identifier de s'inscrire donc amatul woon sens mais manifestement peut-être li mu bëggoon moom lu mu. sàq mi lu mu lu mu lancoon la ba pare en fait fallait que mu génne ko sans tenir compte quand même qu'on avait dépassé cette étape-là et pourquoi il est en porte-à-faux avec les consignes du président de la République parce que ci wàllu dialogue bi gis nañ ministre de la communication mu dem ba wax ni li ko naqari mooy pourquoi ñu bëgg a passé ministère bi en fait. pourquoi patron de presse yi di wax ni. dañu bëgg a président de la république dañu bëgg a président de la république di jéggi ministère bi mais loolu. mais ku nekk sañ-sañam la nga ne vraiment sama problème toll na foo xam ne bëgg naa rencontrer président de la République yokk ci président de la République moo wax ci làmmeñam ñu dégg dans son face à face avec la presse bu ñu bëggee nañ ma bind ma recevoir leen il est où le problème. président yokk ci ne convention des jeunes reporters du président bi recevoir la leen lu tax jaaruñ ca ministre ba te le président les a reçus non. non xam nga en la communication qui est problématique. parce que élément yi mu indi bu ñëwoon avant la communication du président on pouvait comprendre mais le fait que ce que ça arrive bien après est presque en contradiction avec tout ce que le président a indiqué en conseil des ministres. c'est pourquoi je pense que c'était superflu ce n'était pas utile amatul woon njëriñ ci moment boobu et malheureusement ce que ça a fait et des tensions pour rien aucun gouvernement mmh. aucun gouvernement n'a intérêt à gouverner ci tension loolu jigul kenn jigul kenn je ne reprends pas le terme cooki ça c'est un, c'est un truc politique parce que nekk duñu woon ci séquence gouvernement bi donc du ma ko ci dugal mais aucun gouvernement n'a intérêt amul intérêt ci yor réew ci xët-xët ci tension moom kay naxante la ci jàmm pour avancer maintenant naxante ci jàmm san ne veut pas dire maslaha bu loolu kenn waxu ko te dans le fonds le ministre li ko gënoon nu yitteel. wane ni entreprise de pêche si fayuñu impôt et c'est quand même dommage qu'un ministre de la République di brandir un document d'acteur yoo xam ne ay acteurs yu légitime lañ yu am wàll ci liggéey bi di ko brandir comme un document officiel parce que ministre bi ni mu brandiree document convention des jeunes reporters qui est leur document de plaidoyer il faut le dire mmh. patron de presse yi defoon leur document pour montrer que bon les entreprises de presse tout va bien hein? ñun on a recruté on a des taux quand même de CDI nangam nangam ak nangam ak nangam loolu mun na doon document de plaidoyer patron de presse yi peut-être même pour <laughs> appeler des investisseurs pour chercher des partenaires pour montrer le donc c'est un document de plaidoyer est-ce que en ce moment-là le ministre aurait pu brandir ce document-là pour dire à patron de presse yi ñoom nii la ñu présenter seeni entreprise de presse tout comme jeunes reporters yi ñoom nii la ñu présenter situation wu jeunes reporters yi est-ce que le ministre aurait pu brandir un document du SYNPICS qui est un syndicat qui est dans la défense des intérêts matériels et moraux des salariés pas de l'entreprise mënul woon a brandir un document du SYNPICS si pour le présenter comme un rapport officiel donc il faut éviter ça li li li li tax ñu war ko éviter mooy évidemment da ngay indi féewala ci ñoo xam ne ñoo bokk ce parti pris là pour yëkkati kii pour suul kële du cëru ministre bi nga xam ne moo njaboote ñëpp. Mm. à ce niveau là du à ce niveau là nan la ñuy def finalement pour génn ci li nga xam ne moom moo di euh, goutte gi les stratégies ou bien les démarches <coughs> yu ñu war a teg sur place euh, pour que ñu mën a trouver euh, consensus wala boog solution. déjà nangu ni y a quelque chose boo xam ne dama régal mu doon un hiatus. entre le ministre et les patrons de presse parce que évidemment la suite de la sortie du ministre c'était la sortie des patrons de presse est-ce qu'on peut nous proposer je pense que je est-ce qu'on a cet extrait-là du ministre parce que pourquoi je dis que ça peut être un hiatus je vais vous proposer qu'on écoute le ministre le hiatus c'est ministre bi toll na benn situation boo xam ne moom xajale na li presse public média public ak presse privée te xamul ni wala xam na ko mais moo ko tey que ni cahier des charges média ci boppam bu mu mën di doon amul xaj mooy mission de service public de l'information mais écoutez bien écoutez bien parce que c'est important écoutez bien ce que le ministre il dit ci différenciation média privé ak média public est-ce qu'on peut l'écouter la même enseigne entreprise privée yi ak publique yi parce que maa koy tooñee DG AP ce matin ma ni ko yow même bu fekkee état moo lay warul yam même traitement ak entreprise privée parce que muy yow muy la RTS su ma leen woowee ne leen ñëw leen couvrir on ne peut même la même enseigne entreprise privée yi ak publique yi parce que maa ngi koy tooñee DG AP ce matin ma ni ko yow même bu fekkee état moo lay financé warul yam même traitement ak entreprise privée parce que muy yow muy la RTS su ma leen woowee ne leen ñëw leen couvrir ma fay leen ou ma ñàkk leen fay da ngeen ñëw couvrir parce que vous assurez une mission de service public ñaata ministère ñoo leen yoreel ay ay ay millions yu dul jeex aujourd'hui enveloppe bi soo ko tegoon tey ay milliards la mais vous n'êtes même pas sûr d'être payé parce que encore une fois vous assurez une mission de service public loolu c'est pas le cas du privé bon là j'espère que le ministre vraiment dans sa communication ou dans son rapport avec les médias <laughs> vraiment doit regretter ce propos là on peut le comprendre hein, dans son développement xëy na bëggul woon a wax lii mais lii c'est en fait c'est dangereux parce que réew mi est-ce que mën nga <laughs> c'est-à-dire y a une en fait qui nous montre que jarul xaajale mhm. presse privée presse publique amul différence et li tax mu graaw mooy moom mii di jox autorisation yi c'est-à-dire cahier des charges même rajo communautaire yi mission service public de l'information boobu moo jiitu lépp donc mënoo ko dénier presse privée est-ce que ministre bi mu def conférence de presse parce que nee na bu woowee ñële sañu ñu bañ a ñëw en moom bi ñu def conférence de presse est-ce que ñoo fay pour ñu dem xam nga service public de l'information mooy lan li gën a gàtt bi fi Covid jaaree mm. defe naa ni kenn mënul niyeel média privé yi li ñu def ci sensibilisation. chaque matin ci donner les mm-hmm. informations. est-ce que mm-hmm. bu ñu daan couvrir docteur Mamadou Ndiaye. Mm-hmm. muy joxe limite ku nekk bëgg xam. c'est ça le service public de l'information. loo xam ne suñu cër la ñu koy def di jottali information feebar bu bees bii génn nii. variole du singe. variole du singe liñ ci def reportage di wax naka lay naka lay wàllee nit ñi pour nit ñi fagandiku te kenn fayuñu ci. parce que loolu mooy suñu cër loolu mooy service public de l'information en fait il fait juste une confusion entre l'entreprise publique qui a un statut juridique mm -hmm. et le service public de l'information qui n'a ce sont deux choses qui n'ont absolument mais, rien à voir mais aussi les ministères euh, moom lu muy wax mu ne mini am na euh, ministères yi dañoo yoreel RTS euh, ak ñeneen mais noonu la ñu yeneen ministères yi yorelee aussi le <laughs> la presse la presse privée je, les ardoises également je sont là je veux même pas être moi dans voilà. dans ma prise de parole mm -hmm. je parle pas pour un patron en particulier mm -hmm. mais évidemment les patrons on les a entendus dire mais ñun ci suñu bopp yore nañ leen xaalis boo xam ne xëy na bu ñu leen ko fayoon sax mm-hmm. mën nañu avant sax ci impôt yi déjà parce que on rentre dans un cercle vicieux mm-hmm. évidemment un patron qui expliquait que ok ah, état bi daf may liggéeyloo war maa fay laaj ma quitus fiscal mm-hmm. bi nga xamante ni impôt yi moo tax mënuma koo am évidemment mënuma produire euh, quitus fiscal mu ne ah kon mënuma laa fay sa xaalis a ngi fi toog donc xaalis boobu di dajaloo di dajaloo di dajaloo di fa toog alors à un moment peut-être bu ñu la ko joxee mën nga avance sax ci impôt bi mhm. mais ça loolu mooy propos président loolu mooy mhm. propos wu président de la République c'est dans l'ex encore waaw moi je veux rester sur vraiment sur la parole présidentielle et et quand il y a des séquences comme ça quand le président la parle mhm. jaratuñu ci yokk leneen lu dul jëfe ko parce que dans un passé récent pas lointain dañu daan gis président Macky daf doon fàtte ni sax li mu yox ci conseil des ministres bi waxoon na ko y' a un an combien de fois. Mm-hmm. il a dit je demande au ministre fàtte ni waxoon na ko y' a six mois. Mm-hmm. parce que li ko indi mooy. jëfeewuñu li nga xam ne mooy ndigalam tey tey tey tey tey. comment on fait pour régler ce problème la mm-hmm. évidemment on doit retourner. à la parole présidentielle. c'est tout l'application rigoureuse des dispositions du code de la presse bi nga xam ne mais mën na prévoir sax statut fiscale spéciale pour les entreprises de presse. Mmh. Ça, c'est une recommandation. C'est pas forcément porter le plaidoyer. Peut-être que dans les pays sérieux, il y a des mécanismes. Forcément, il devait y avoir des mécanismes pour cette fiscalité. Il ne mhm. s'agit pas de dire presse moo ëpp hôpital. wala hôpital moo ëpp njëriñ enseignement parce que loolu xam nga lu muy indi. Mm-hmm. enseignant bi danaan mais man magistrat bi nga xam ne dañuy fay dañ koy fay loo xamante ni mën na ma jënd. fay mm-hmm. man ak sama waa kër man maa koy jàngal. Mm-hmm. kon lu tax mu gën ma important. après tu rentres dans un cercle boo xam ne doo ci génn. du demee noonu mission de service public. bi nga xam ne nii média mu ngi koy dox te kenn fayu ko ci. hôpital boo fa demee dañ lay fay. ñu ngi couvrir activité gouvernement hôpital amul hôpital booy dem te doo fay. c'est pas gratuit média nag moom mooy def loo xamante ni c'est gratuit kenn fayu ko ci parce que loolu la signé ci cahier des charges bi daf ko war a def et loolu moo justifié sax pour juste pour être précis parce que loolu moo justifié li ñuy mm-hmm. tuddee aide à la presse mm-hmm. aide à la presse bi moo nekkoon ah pour compenser wax dëgg fi yàlla da di def lu bëri loo xamante ni état moo ko war a def état moo war a sensibiliser ci dugg école mais état bi mu fi jëlee programme scolarisation scolarisation des filles SCOFI mm-hmm. état dafa toog rek ne allez scolarisation des fii donc na sotti. Hmm. mais médias yi ñooy def reportage ci loo xam ne kenn santu leen ko Chérif buy def fii menu midi yaakaar nga ne day xaar gouvernement fay ko pour ñu def reportage et la presse a sauvé tellement de vies. oui mais bien <laughs> sûr mais après après xam nga la ñu war a xam nga lan la ñu war a bàyyi. Hmm. on doit arrêter hmm. d'opposer aux médias un fait une séquence. gis nga séquence luy jaar jàll la. la même façon. on doit on peut dépassé d'opposer aux hommes politiques des séquences. c'est-à-dire tey ban homme politique nga fiy jël ne ko ah saa waay yaa waxoon lee kon tey waxeet nga. xam nga amu fi ak ku mën di doon. boo jëlee président Bassirou Diomaye Faye la mu la mu la nga xam ne mu gëmoon na ko ci par exemple présence am ci ci ci ci ci conseil supérieur de la magistrature. Mm-hmm. reconsidéré na ko. Mm-hmm. on ne peut pas le reprocher parce que justifié na ko li tax mu reconsidérer ko mooy waa ñi nga xam ne ñoom la gën a soxal ñoom nee nañu gisuñu ma génn ci conseil supérieur de la magistrature man ba may wax sama yéene laa wax mais ñi nga xam ne ñoom la conseil supérieur de la magistrature gën a soxal bëgguñu ma génn kon dinaa leen déglu loolu aussi mooy nit. nga déglu ñi nga xam ne ñoom nga nekkal donc opposer nit à une séquence. tout comme opposer média une séquence ah, yaa waxoon lee kon yow moom définitivement rek non attends mais on est où. un moment il faut mais oui il faut qu'on avance et <laughs> malheureusement c'est pour ça que je dis. Mhm. si ça continue. Mm -hmm. ça peut foirer le projet parce que xam nga lu tax dafa am séquence je fais rapidement. rapidement oui oui Ablaye. eu la séquence quand de crise du dund gi affaire yi soxal du Wade la mhm. farine. regarde la communication du ministre du commerce évidemment ils ont réussi à baisser. Mhm. mais ils ont laissé quand même un passif tey avec. le secteur privé boo xamante ne xëy na dootul dimbalee ti état ni mu ko war a dimbalee. Mhm. parce que quand il a fallu régler ce problème la communication du ministre du commerce et des et de l'industrie Serigne Gueye un certain moment quand même problème parce que état moomul pour wax entreprise eh yër naa seen benn yër naa seen i compte mhm. xam naa ni vous feddee bénéfice bénéfices il leur dit yéen les sept meuniers là vous faites des bénéfices entre deux et quatorze milliards xam naa ko man état bu ko xamoon sax am na ne noonu ko waroon jëfee lu dul teg ko ci communiqué. Mhm. à l'inverse on dit aux entreprises de presse privée eh yër nañ seen i compte vous devez quarante milliards de dettes fiscales finalement on a un état qui ni les entreprises qui font des bénéfices est-ce qu'il y a une honte à faire des bénéfices mmh. est-ce qu'on peut opposer à une entreprise est-ce que mën nañoo euh, euh, jiiñ entreprise da ngay def bénéfice donc yaay yaay ŋàcc direct nit ñi alors que entreprise commerciale dañu war a def bénéfice entreprise dañu war a décomplexer di def bénéfice bay dem à la bourse mm-hmm. nga xam ne day am transparence totale loolu dara nekk ci entreprise bi def ay bénéfice mm. donc d'un côté on n'aime pas les entreprises qui font des bénéfices mmh. évidemment côté aussi on n'aide pas les entreprises qui sont en délicatesse avec le fisc encore je précise gisuma benn yoon patron de presse bu ne fayuma ni mu toll nii mënumaa fay nañu waxtaan ci nan laay fayee te it ñu yokk ci xool statut fiscalu entreprise de presse gis nga loolu mënu la ñàkk <laughs> pour tout dire les dispositions du code de la presse le président demande l'application intégrale waa nañu ci dem affaire yi féete boor comprendre on a mieux compris lan mooy tax euh, nga jël intitulé bi ils vont euh, foirer le ou leur projet merci beaucoup si njàngat bi nga xamante ni euh, nekk na njàngat bu am solo bu nga xamante ni jëlee nañ ci kon information yu bare bari mais aussi clairvoyance bi nga xamante ni am nga ko donc ci sujet bi nga xamante ni indi nga ko wax nga ko ça sert à rien de diriger un pays avec des tensions merci beaucoup Ablaye et puis. on te retrouve la semaine prochaine euh, incha allah euh, ñu ñëw ah. ah yow tamit. doo jërëjëf. xamul Ablaye on va recevoir tout de suite suñu invité professeur Lamine Ndiaye donc il est derrière à la régie c'est un criminologue. on va parler de tout ce qui se passe jamono ji ci wàllum climat yi ni mel maintenant Sénégal ñu ci gën a bëri ay criminologue lañu euh, dañuy jàngat lu bëri bëri ci ay scène de crime euh, donc euh, entre guillemets donc on va voir tout ça tout de suite voilà là on a un vrai professionnel qui va nous parler <laughs> donc <laughs> donc tout ce qui est crime tout de suite le professeur Lamine Yaya